sénégalais Sénégal code ah. pénal ñu la wax nga dem ci article deux cent cinquante six. deux cent cinquante six donc après ci kawam moom mooy délit d'offense au chef de l'État ak mmh. euh, comme ni ñu jàppee woon Bah Diakhaté ah. autorité dépositaire et cetera donc moo tax di mu buñ ko jàppee. Euh, bon euh, parce que nag bu ma liree vidéo bi sama yaram dawoon nag vraiment. gis naa paa bi nag yéenu moo ko loolu. parce que man jàppoon naa bu mu jébbaloo Abbas Fall jàppoon naa ne. Euh, voilà c'est c'est fini quoi. mais lu war dafa rëy. dafa rëy parce que eh, moom eh, boo waxee nit dafa dee dañ koo rey rek. bokkul ak nit dafa dee. donc yow certainement xam nga lu ñu xamul. te boo demee xam nga lu ñu xamul bu dee loolu nga supposé xam. te mënoo ko firndeel après loolu fen lay tudd maanaam fausse nouvelle lay tudd. loolu amul tur beneen lu dul fausse nouvelle. léegi nag bu dee sëriñ bi. Moustapha Diakhaté eh, bon xam naa waruma ko wax sëriñ sama monsieur par respect lu mu wax dafa rëy. moom lu mu wax dafa rëy. Mhm. man foogoon naa bu mu saagaa yonent bi. Mhm. foogoon naa pare na si mais ku sañ saaga yonent bi. Mhm. alors mënul bañ saaga. doo bàyyi doo bàyyi euh, koo xamante ni euh, yonent bi la sopp. waaye dafa ëpp nag. doo bàyyi keneen ëpp surtout euh, nga saaga. ñu ëpp ñu ëpp tànneef. Ah. nga ne leen non non non non pas bi mu waxee la ma ne nga baal ma de. Mhm. yàlla xam na ne nii laa wax soxna si ma doon defal émission ma ne ko nga baal ma waaye pas bi ñëwee du ñibbisi. Ah, parce que mënoo saaga nit. Mhm. yow li nga wax amul teggin. Mhm. amul yar amul respect amul amul lu ñu tuddee maanaam lenn ngay xool nga gis ne mag mii. mag moo war a wax lii même xale bu xale bu ndaw sax du ko wax. de parce que c'est pas possible que c'est inadmissible. Uh-huh. nga nekk kilifa nga ne d'accord. nga ngay uh-huh. def politique nga tànn li ngay tànn nga assumer ko. Uh-huh. jour vote nga dem voter. ngay ñaan ki nga votal gagné ñeneen ñi tamit am tànneef assumer ko ñu am ñu ëppale. léegi nga ne la yéen ñëpp ñu tànn da ngeen a mais non non non ça c'est ça c'est inadmissible. Ah, parce que. et loolu soo ko waxee. Uh-huh. yaa ngi saaga saaga saaga même la république. parce que la république moo ne. Uh-huh. Euh, li ñu tuddee ñun le socle républicain le le cadre républicain daf ne. Uh-huh. bu ñu demee ci élection dans une démocratie. ñu ëpp ñoom ñooy jël ndam li. waaw li ñu ëpp jël ndam li constitution jox jox leen ndam. ñëpp code électoral jox leen ndam. d'accord. commission de recensement des votes joxe ndam bi. joxe ndam léegi yow nga ne non. yéen ñëpp waaw d'accord diw moo gagné de. waaye ñi mhm. ñi tax ñu gagné ñëpp non non non. ay lii ngeen. non non non non non ça c'est irrespectueux. Mhm. ça c'est irrespectueux. léegi nag vraiment j'ai pas envie de voir la semaine la semaine prochaine. Mhm. parce que si c'est c'est dommage ils sont en garde à vue ah mais c'est là bu ñu nekkee mandat de dépôt mu la jaaxal de. ah bon ah tey lan 23. 23 notel bu ñu nekkee garde mandat de dépôt mu la jaaxal. parce que boo moytuwul probablement lan dina leen di présent procureur amul probablement c'est ça. leen jébbal ah, procureur. tey duñ génn. Mhm. di génn suba. duñ ñibbi tey. Mhm. duñ ñibbi suba. te lënd na leen defeere lu ñu lu ñu lu ñu def brigade wala commissariat. 48 mhm. heures ña euh, mi garde à vue ñaata lu 48 heures. 48 heures suba lay jeex noonu. bu jeexee looy def tey dem. su demee amul procureur jotu ko. retour de parquet. c'est simple bu amee bu amul retour de parquet mandat de dépôt mooy lu gën a wóor mandat de mooy lu gën a wóor parce que Serigne bi jaxate pour nga comprendre de manière simple su demee bu ñu bu ñu ko wooyee cybercriminalité cybercriminalité moom à chaque fois mu woo rek jàppal ne lu mu lay woowee dafa jaaree ci télévision wala ci réseau social maanaam li nga wax ñoom ci vidéo lañ ko gisee wala audio mhm. léegi nag ñoom loolu mooy seen liggéey léegi nag heure boo demee li ñu la njëkk xool mooy est yaay personnage bi. Uh-huh. est-ce que vidéo bi yow la nga ne waaw li nga ci wax loo ci wax cest de kii que foofu xam nga ne paa bi moo wax loolu. Uh-huh. xam nga lu wax dafa rëy. léegi loolu mu wax bu dee nii dafa rëy est-ce que yow di nga est-ce que war nga ñu ne sàcc baaxul. Uh-huh. nga sàcc dem tribunal ñu bàyyi la. déedéet alors kon kon atte woo mais da ngay xam ne lii moo ci mun topp. sëriñ bu dee keneen ki aussi diffusion de fausses nouvelles. si par exemple li nga ah, wax. Ah. mënuloo indi les preuves de ton de tes allégations mais tu es dans ce qu'on appelle la commission de l'infraction tu peux pas t'en sortir la suite logique c'est quoi un mandat de dépôt c'est simple. Uh ah. -huh. c'est en flagrant délit d'accord mën leen la atte la même semaine ou bien cinq bis topp mais dans tous les cas tu es en flagrant délit. Uh -huh. et la commission l'infraction est consommée loolu boobu mooy tuddoo ci génn. moo tax waaw ah dama mandat de dépôt moo ci gën a wóor man kay maa la wax loolu mandat daa dépôt moo gën a wóor léegi mu Moustapha Diakhaté lu mu wax li tax mu gën a garaaw mooy xam nga kee dafa wax ma indul mënu indi preuve. Uh-huh. mais kii dafa wax mais mën na yee fitna. waaw ah, mën na yee fitna moom. yaa ngi dégg. Uh-huh. fitna bi mooy am na koo xamante ni soo ko waxeelee lu mel noonu. Uh-huh. sañ na la fekk fi nga nekk mu dóor la mbécc mu gën a sedd. mais jaral na ko lu bëri yaa dégg. loolu mooy manœuvre à compromettre la sécurité publique léegi bu ko jëlee lu bëri nga mhm. fekk ko coow mënu fa judd. ok puisque mbirum politique la day dépasser ñaari nit day nekk genre ay mën na doon ay camp camp mën nañ jote. Mhm. wala yow ñooñu bu ñu sentir ne diw dina dem attaquer. Mhm. Euh, Ousmane Diakhaté parce que moo ñu saaga léegi yow. balaa ñuy ut ñuy seetaan dinañ saaga dina rayante. est que procureur moom du di ñëw taxaw taxawaayu arbit ne. yow mii yaa provoqué lii balaa ngay provoqué luy taal réew mi xaaral ma ma jàppale yóbbu la. exactement loolu moo tax loolu moo loolu mooy technique de de son arrestation c'est aussi simple que ça. Uh -huh. et moom quand même avant d'être convoqué il savait que il a être il allait être convoqué parce que avant muy dem këram. ndax mais uh-huh. jàpp naa ni sax lii mooy dernier jotaay bi may am ak yéen avant may dugg. Uh-huh. tàggu na njaboot gi aussi. Ah, tàggu sëñ bi am na looy def xam nga ne lii moo la ciy ne nous parlez par de délit d'opinion c'est pas ah, ça c'est pas des délits d'opinion ah. man déjà am na ñu ma commencé gis. ñu naan lii mbirum jaay doole la c'est pas des délits d'opinion. Mhm. sëñ bi c'est pas des délits d'opinion. un délit d'opinion ou délit de presse. Mhm. ce n'est pas le synonyme de wax lu la neex. du loolu mhm. kon kay mën naa toog fii rek di inventer une heure temps di fen euh, di wax loo xam du dëgg. est-ce que vraiment. dañ ma war a bàyyi ma par respect sax ñii seetaan waruma leen wax loo xam ne du dëgg. vraiment allez pourquoi yow nga mën a lu gën a sérieux. Uh-huh. mënoo indi preuve yi nga taxaw affirmer mënoo indi preuve waaye que élection jàll. léegi moom candidat bu mu àndal sax. ndaa uh-huh. félicité ñooñu muy saaga. li tax topp ci rang yi. amul kilifa politique. ok waaye li tax kilifa moom xaw ma fu mu bokk mais quel que ku mu votel kooku félicité na. Uh-huh. ki ñu wax ne moo gagné léegi lu tax am na ku mu ah. àndal de xaw ma kan la àndal mais da ko félicité leader am daa félicité ñi gagné. Ah. wala ba mënul digérer victoire bi mais toogal su ruq rek kenn bañ la xamal. jàpp sa ñaamur mais nga toog ci télé après ah saaga yeneen bi pareeguñu. ah nga non non non. Moussa non dafa dafa lu mu wax dafa rëy dafa rëy. alors kaaw Samuel Sarr aussi yan leeral nga nu si mën indi parce que moom it ñu ngi xamal ni dafa dem voyage ñëw wàcc ay BD daal di koy teg loxo yóbbu ko fële ca ca section de recherche.